mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax a baax euh, teewaat fii ci ndimbalu sunu borom ak kattanam ci 30 minutes euh, chrono di gërëm ñëpp di leen euh, sant ci ni àndeek ñun El Hadj Modou Diouf Abdoulaye Diallo ak Abdou Top alxamis junne ñu dellusiwaat bu waxtu wi jotee fa seene ànd ak yéen ci actualité bi tey ji ni ngeen ko gisee ci sunu titre yi noonu la ñuy dikkee ci lu weesu. ak fi ñu jëm lu weesu buñ ko waxee mooy reportu élection yi wax ci dialogue bi ñu weesu ak fi ñu jëm le 2 juin di proposition boo xam ne ci dialogue bi la génnee léegi ñu ne division amnistie diversion mu doon loo xam ne tey jii bu ñu doon xayma lii di dialogue bi mënul génn ci ñett yooyu léegi nag ñett yooyu lu tax ñu ci sukkandiku jëm ci Macky Sall mi matt di ëf maanaam bu teye mu ne lii bu teye mu ne lee kàddu gu mujj gi conseil constitutionnel moo ko yor waaye kàdd gu mujj gi tam man maa ko yor mu doon benn Macky Sall boo xam ne day lambatu day lambatu te xamul fu mu jëm te li ko dal yépp moo ko teg boppam ndaxte boo sukkandikoo ci dialogue bi di nga am loo jàngat ci kàddu yi mu Mamadou Lamine Thiam bokk parti démocratique sénégalais mu ne commission d'enquête parlementaire bi ak ni ko defee li soupçon de corruption yi ñu doon wax jëme ko ci conseil constitutionnel ci ñàkk bokk Karim Wade maanaam ay superfice la woon rek wala mu doon ay mbir yu ñu tegoon parce que ñoom mënuñu comprendre en deux mille dix neuf Karim Wade demul élection en deux mille vingt quatre du dem élection PDS du bokk moo taxoon ñoom ñu dugg ci yooyu loolu ñu duggoon nag dugal ci njiitu réew mi moom tam mu nangu cee dugg ndaxte moo jël lii di coalition am ak député ya mu am ca assemblée nationale.

mais yàlla dogal bi ñu eggee la 15 décembre conseil constitutionnel gën a kalaame ab ñu bokk ci kujje politique yeeg yenn député wax ni loolu mënta ne jël kàddu gi jox ko njiitu réew mi ne ko dans les meilleurs délais loolu tax maanaam Macky sàll xamul njekk des fois damay faral di wax baat boobu bu ne dans les meilleurs délais cela ne veut pas dire que jël temps bu la neex def li la neex parce que bu ko neexoon mu ni ko dans les plus brefs délais. maanaam ci ni mu gaawee mais président dañ koy jox cër jox ko njëkk te président kenn du ko wax gaawal orma boobu conseil constitutionnel jox ko bu doon xam ne cër bi nga ko jox moom ba mu xëyee ca suba sa lalaan sama mandat le deux lay jeex balaa la deux dinaa fi organiser élection yi tegu ko parce que ñu bari ñu ngi naan le processus électoral ak élection ak ni mu war a demee mooy durée campagne bi organisation élection yi convocation corps électoral bi yooyu yëpp mënu fi woon xaj moo tax jàppuñu le vingt cinq mais bu ñu jàppul le vingt cinq mais avant le de waroon nañ mën a jàpp bis mais comme Macky Sall li bëgg rek la xam ak li ak li ko gënal jàppul bis il faut se dire la vérité jàppul bis jël lépp delloowaat ko conseil constitutionnel ginnaaw ba ko conseil constitutionnel joxe tey jii moom mu am décret présidentiel boo xam ne moo war a fixer la date des élections mu créel ñu fi lu kenn xamul parce que élection yi ci boppam la bëggul woon dem léegi mu sukkandiku ci assemblée national seetloo bi commission d'enquête bi jeexee ci leen ibbi ab information judiciaire ci plainte bu juge Cheikh Ndiaye te boo déggee. waa PDS yi ni ñuy waxee ci corruption boobu non il faut de la vérité corruption bi amul parce que ñoom nee nañ il fallait que ñu ut fu ñu jafandu rek mais ut foo jafandu ba mën a jël tuuma yi dool ne ger amoo benn élément ci wàllu preuve amoo benn début de preuve pour mën a teg loolu loolu c'est di n'importe quoi loolu tax waa PDS yi wax ak ñoom dafa jot surtout que kilifay PDS yi Karim Wade ñoom Lamine Thiam ak ñoom seen on a beaucoup de respect pour eux mais fi ñu yóbbu senegal ci wàllu crise ñoom xamaguñu sax conséquences yi lool tax ñoom ñëpp ñu ngi naan na Karim Wade bokk mais Karim bu bokkoon ñëw ci réew mi fii di campagne bu doon fukk lay laaj juróom sénégalais yi duñ ko ko jox ndax jéppi ko parce que ce qu'il a fait ak ñoom Lamine Thiam ak yooyu loolu du lu leen sénégalais yi di baal. Macky Sall sukkandiku ci ne pousse na élection yi conseil constitutionnel jëloo ko cër bi na ko convoquer les acteurs mais quand on parle d'acteurs mais ñu yor wàllu élection organisation moo tax ñuy wax wante dëgg ñu yor wàllu élection moo tax ñuy wax le ministre de l'intérieur le Euh, euh, caisse de dépôt li jëm ci wàllu euh, lii nu mu tudd co convocation corps électoral bi li jëm ci wàllu jël askan wi xool la carte électorale est-ce que lépp disponible na les bulletin le matériel électoral mais tey jii ñooñu rek la waroon consulter même candidat yi naa na leen consulter sax pour man jaru ko woon parce que kan les candidats les dix-neuf amatul affaire ak le président Macky Sall. parce que le président Macky Sall c'est le président sortant moom mooy dem ki dem lan la seq ak kii dugg ne nga je suis le président sortant le deux a taxali ko réew mi tey rek def na benn tut di ko fàttaliwaat mais kon kooku daj soxlawul woon benn dialogue boo xam ne dafay toog pour ñu naan dañuy fixer date ñu gis fa ay nit yoo xam ne ce qu'il disait c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi mais dafa mel ne sax ñi doon dialogue Macky Sall dégluwu leen da leen utiliser pour un moment pour amuser la galerie parce que Macky Sall aussi tamit loo ko mën a waxal ci àddina Macky Sall li mu bëgg ci àddina man am na ay nit yoo xam ne jot nañ ko fréquenté wax ma Macky Sall dafa bëgg ku ko jaay Macky Sall dafa bëgg ku ko tagg Macky Sall dafa bëgg koo xam ne Macky Sall même nit ku koy wax dëgg du ànd ak yow même médias yi ngay gis ni nit ñi ci nekk boo gisee journalistes yi ak chroniqueurs yi ak yenn tiktokeurs yi sonn ci nguuru Macky Sall loolu la mooy Macky Sall day ay détails maanaam day lijjanti ay détails waaw booy bi toog ci télé bi booy bi toog ci internet bi booy bi lii booy bi lii booy bi lii man lay waxal kërëb kërëb loolu daa tey jii imagine un président de la république bi bàyyi xel ci ay TikTok réseaux sociaux seet loolu lu xew ci réew mi rek noo def ñu lijjanti ak réseaux sociaux yi mënul wax ba jeexal te toogul toog ci rajo yi di mbell mbell Macky Sall revue de presse sax da koy déranger moom ngay dégg le seul président de la république bi wax naan nii lay defee revue de presse ak da ngeen ko defee kooku may Macky ci ay détails nekkul ci ay grande ligne ci ay détails la ne mooy kii di wax ak man lu tax mooy wax ak man nii télé bi fee a far rajo bi fee a far c'est ça Macky moom li mu bëgg mooy ki ko lii boo xoolee même bi muy janoo ak taskatu xabaar yi Seneweb ITV ñoom Alassane Samba Diop ñoom Mamadou Diallo boo xoolee dafa indi sax ñaari ñaari ñaari ñaari journaliste yoo xam ne tey jii kii mi ngi nekk RTS Racine Talla bokk APR moom mu nome ko nga jële yaa xam mbay bokk APR moom mu nome ko mais lan lan doon def foofu mais comme Macky Sall ay riiti la bëgg ay ñu koy riiti la yooyu la bëgg mais il fallait que woo leen foofu alors que ñooñu mënoon leen tànn seen rédaction benn booy wala un jeune reporter mu ñëw toog jàkkaarloo président de la république poser ko question yu war loolu nag bu amee mooy ragal aussi tamit dafa am ci ni Macky Sall di doxee da ngay sentir ragal ragal boobu nag lan moo ko indi. lan moo ko indi lan lay ragal wolof nee loo ragal dalay gaañ mooy bëgg naa dem bëgguma dem bëgg naa dem bëgg bëgguma dem tey rek def na benn tuit di ci fàttaliwaat ni le 2 day dem mais le 2 avril Macky ñëpp xam na da ngay dem ñun li ñu xam nga ñuy wax mais Macky lu kenn xamagul nga ñu wax maanaam li ñëpp di xam di laaj te bëgg ko xam nga ñu waxagul maanaam c'est ça problème ñun li ñu xam Macky Sall wax mu mu ngi koy wax te loolu ñun ñoo ko gën a xam Sénégal ñëpp xam na ni élection présidentielle dernier dimanche du mois de février lañ koy amal mooy vingt cinq la war a am loolu ñëpp xam la mu dindi ko fa te tegagu fi dara ñëpp xam na ni euh, diggante bu président bu falo ak président bi dem dañuy xaar ba le 2 avril pour mu matal 5 ans yi parce que le cinq 5 le 2 la jëloon avril la jëloon fonction. mais le 2 avril la war a demaat loolu loolu ñun ñëpp xam nañ ko parce que depuis 1968 ba léegi Sénégal noonu lay doxee ci wàllu élection on a réglé ça mooy waxtu ne xam nañ moment bu ñu war a dem élection te yàlla natooguñu ñu am ay catastrophe naturelle ay yoo xam ne day tax duñ mën a dem élection mais pour la première fois ñu gis ci Macky lu mel ni xew kon loolu il faut que ñu def ci jàngat léegi nag li ñuy xaar mu wax ñu ko moom la ñu waxul. mooy le deux moom day dem léegi le deux day dem mais ci dialogue bi fexe na ban lu jëntil ko benn mbir mooy intérim intérim mooy li xewoon ci code équipe bu Côte d'Ivoire Jean-Louis Gasset entraîneur bi bi mu démissionné Emerse Faé lañ jël mu remplacé ko loolu mooy intérim ñu ne Emerse Faé assuré intérim bi ba. tournant bi jeex loolu rek mooy intérim boo déggee intérim loolu la léegi nag intérim boobu est-ce que ne nekkul ni moo tax ñu jàppal ko le 2 juin parce que le 2 juin bi ñuy jàppal Macky Sall Macky ngi naan le 2 lay dem mais le 2 juin bi moom moo ko bëgg moom moo bëgg 2 juin bi parce que moo taxaw ci dialogue bi wax lu leer mooy nan sóoraale ngénte yi sóoraale céet yi sóoraale dëj yi sóoraale gàmm yi sóoraale màggal yi sóoraale nawet bi sóoraale xale yi jooy sóoraale lii sóoraale lii sóoraale lii te bëgg naa balaa nawet bi ñu dem élection parce que bu waxoon mu leer waxanu Macky Sall ay waxam moom lu leer bu waxoon lu leer ne balaa le 2 avril fexe jàppal ma bis mais bu ko waxoon duñ toll fii mais moo ne balaa nawet bi kon jégg na la 2 avril léegi ñu proposé que le 2 juin léegi ñu ne intérim intérim yow nan ngay nekkee ci poste di dem ba pare intérim mooy maanaam intérim ki koy assuré warul doon ki dem kon Macky Sall mënatul nekk intérim xam na loolu ñu bari bàyyiwun ci xel mooy déw mois yooyu gars yi jàpp ne mën nañ ko ko amal bu dee baatu intérim baatu tubaab mooy nit ki mënul remplacer boppam boo déggee ñu naan diw remplacer nañ ko maanaam day dem keneen toog mais nit nit ki mënul remplacer boppam ah looloo tax des fois mbiri Macky sàll yow doo xam léegi intérim boobu mu ñu créel mooy un vide juridique mooy un problème boo xam ne xamuñu fu mu ñu jëmee ñi ñi ngi naan article 36 alinéa 1 ñi naan de 2 yi gëmul article 36 gëmul article 37 yi amul culture juridique maanaam yi lii la yoon wax dama koy def non Macky li mu bëgg la xam léegi nag fi mu toll ak ñun mooy di wër-wërloo ak ñun maanaam di màtt di ëf maanaam saa su waxee dara ba àdduna bi yëpp jug rek mu jox ñu calmant tey génn na tuut na non le deux du dem mais bu dee ni le deux da ngay dem Macky avril mais fexe woon nga nga organiser élection yi même deuxième tour bi bi passé bi weesu le 2 avril on peut comprendre léegi ñu ne. bu dee post président bi dafa vacant maanaam dafa dem ba kenn nekku fa léegi Sénégal mënul rester sans président il faut que mu am ku fi nekk président il faut que mu fexe ku am na nit ñi ne le président de l' assemblée nationale mun na assurer intérim parce que le conseil constitutionnel mooy xool xam nga loolu am ñu ne la conseil constitutionnel moom mooy xool kan moo ko ruutu mais loolu ci ban kaa lay amee. mooy empêchement am wala président bi ñu ne faatu na wala mu am indisponibilité maanaam egg ci tële boo xam ne day tële ba mënatul jiite réew mi ñu ne nan jël keneen teg ko fi mais fii yooyu yëpp amu fi fii li fi am mooy waaju ànd ak ñun ba mandaam jeex te nangul organiser élection léegi jógal ñu ci situation boo xam ne problème bi moom moo ko créé léegi créé problème mu boppam ba pare woo ñu nañu régler leen ko maanaam li fi am yëpp ci crise Macky Sall moo ko créer mais créé ko ba pare léegi woo ñu na réglé leen ko yéen mais loolu lu muy nuru loolu yabaate la yabaate la loolu tax ñiy am ay souci ci nii mag yi day dem wala bëggul dem yaa problème beneen problème bi ñu indil mooy dialogue bi génnee na ko parce que am na dof yu nekkoon ci dialogue bi di wax waxi dof yoo xam ne kenn xamul lu mu doon mooy reprendre le processus comment on peut reprendre le processus alors que la liste des candidats est définitive dix-neuf yi moom lew na ba pare léegi lan lañ mën a lewal ci ginnaaw ñu ne non du reprendre le processus waaye dañuy fexe ba Karim Wade mën a dugg mais Karim Wade mi conseil constitutionnel na woon mënoo bokk ci élection yi bu liste bi définitive après le 20 amul benn recours boo xam ne mën nañu ko indil ci conseil constitutionnel benn recours boo xam ne tey jii war nañ ko jébal ci conseil constitutionnel léegi bu Karim doon dugg nan lay duggee c'est-à-dire que il faut se poser des questions léegi dañuy violer constitution wala ñu ne conseil constitutionnel weddi leen seen bopp maanaam weddi leen seen bopp weddi leen seen bopp. mooy yéen na noonu waa ji warul dugg te yeneen na day dugg yeneen na woon liste bi tëj nañ ko ci 19 la même bi su am Wardini génnee maanaam Rose Wardini kenn remplacé wu ko danoo mettre à jour liste bi rek mettre à jour liste bi ne Rose génn na léegi 19 la mais le problème est réglé mais pour pourquoi Macky Sall bëgg a xaj xajal kii di Karim Wade loolu question boobu il faut que nit ñi di ko poser pourquoi Karim ki nga ne woon deux mille dix neuf warul bokk ki nga fi tëj kaso ay ñetti at ki nga fi exile juróom-ñaari at tey nga ni day bokk ñu bari dañ naan protocole la wala yi moo ko signé est-ce que déggoo ko ak Karim Wade Macky Sall signature Karim Wade kañ la Macky Sall kañ la ko ay signature ak ay déggoo ak ay loolu intéressé ba dañu ne kut ko kut Karim Wade alors que Karim Wade bokkam ak ñàkk a bokkam lan lay wàññi sénégalais ak lan la leen yokk wala dafa am ay force extérieures wala des forces bien organisées comme ni ko Macky doon wax des forces organisées yu ñu xamul est-ce que nekkul ñu ñoo ñu bëgg a la Karim ba tax ñu ne tey ji nan violer suñu constitution nan violet suñu loi pour benn nit wala après le 2 avril le bi dañ koy mën a reprendre am déet ma on se pose tellement de questions parce que da dem ba da réer lan moo xew bu noonu dañuy reprendre le processus après bi président bi demee ñu bëri dañ naan le 2 avril mais le 2 avril bu mu ci eggee le président démission boobu ñu wax est-ce que démission lay tudd parce que le 2 avril même bu bu fa jógewul la président de la république le 2 avril yi même bu fa jógewul mais mandat moo jeex mi ngi mën na sondeel bu ñu taal ba mu jeex nga bëgg ko taalaat mandat moo jeex waratu fi nekk léegi la la Karim ñu bëgg ko dugalaat nan lañu koy dugalee léegi ñu ne loolu les conclusions du dialogue jaloog bi nan la mën a sutee dialogue bi nan la mën a ëppee doole li suñ constitution wax xam nga des fois il faut daa am loo xam ne kenn du ko foowee li suñ constitution wax ñu ne non parce que li leen déggoo ci dialogue bi li la commission ma sàngam wax ni la commission ma dem ba wax mais loolu bu dee ni mën na am mais jurisprudence bu dangereux mooy ñu dem ba ci benn jamono mun nañ demaat ba beneen jamono ñu war a dem élection ñu créer seen i tappale ne nan woote dialogue léegi bu dee dialogue mën na boole nit ci élection wala mu génne nit ci élection bu dee dialogue mën na ko jaratul conseil constitutionnel di recevoir ay candidats c'est pour dire la vérité que ce soit Sonko wala Karim Wade li leen mën a boole mooy reprendre la processus na lay reprendre la processus mais bu dee processus bi mooy continuer keneen mënu ci bokk xanaa ñu ne am na ab candidat bu dee wala lii ak lee mais ba fu ñu toll nii dugal Karim Wade wala dugal Ousmane sonk yombul Sonko moom rek la na problème mu boppam parce que bi mu xamee ne mbir yi fii la jëm mu pousse Jomaay na Jomaay mooy sonk sonk mooy Jomaay. léegi nag Karim Wade ak waa PDS sàggan gin sàggan ba demuñu élection loolu bi ñuy mere nan mere seen bopp kon loolu il faut que mu doon loo xam ne nañ ci bàyyi xel ñu ne élection le juin mais bu dee 2 juin bi ñu Macky bi dialogue bi gars yi proposé 2 juin boobu lan tànn mais loolu problème la Macky nee na fekk lundi les conclusions di jaloo dina ci dina ko examiner ñu xool mais nan yónni yàgg yàggatul ñu xool léegi comment ça va loolu problème la boo xam ne ñun ñi dañ koy kafe maanaam bu ñu weesoo le deux te dem ñu fan la Sénégal jëm ak 2 juin bi ak intérim bi ak vacance du pouvoir bu ñuy wax parce que situation bi boo gisee mu compliqué mooy lu kenn xaaruloo woon. mooy lu kenn xaarul lu kenn xaarul te loolu lépp nag bu amee nan ko wax te yàlla tax mooy Macky Bassirou Diomaye Faye mi jàll la mënta wanaas ji nga élection yi nii buñ ci demoon conseil constitutionnel téye Bassirou fay Faye son ko Karim Wade jàll kenn du reporter élection yi looluy dëgg mais le problème mooy ñoom ci seen biir xam na ni élection yi opposition bi da koy gagné ak Diomaye te prévoir woon la personne de Diomaye te li sonal Macky sàll yépp mooy daa am loo xam ne waajalu ko woon te Macky dafa jàpp ni jomaay ñàkk caaxaan la jomaay il est inflexible jomaay il intraitable moom loolu la jàpp maanaam dafa ñàkk caaxaan bu nee ñuul na ñuul na bu nee woo na na booy bii nii deretu ndaw la yor bis bu fi jëlee réew mi fan lañ jëm xeex naa Sonko dugal ko kasoor rey nañu ay nit tëj nañu ay nit mais teewul le Pastef ou bien la coalition Diomaye wala le projet reste favori parce que mag yi kenn ëpp ko information am nay chiffres yu leer ci ni bu ñu demoon élection opposition bi da koy gagné mu ne gàcce gu gàtt moo gën bu gudd bu ma reporté élection yi dinañ ma mbamb waaye bu ma ko reporté wul tamit dina gën a ñaaw ndax dinaa ko xañ ko jomaay jël ko te bu ko jomaay jëlee lan mooy xew loolu mooy seen problème. te ñàkk bokk Karim Wade bi lu tax mu gënoon a yombal waa Pastef seen yoon ak waa ak projet bi ak opposition bi parce que Karim bu ñëwoon diggante tuuba ak yenn ville yi ak Sénégal ni muy jàppee nit di ko nam ak yooyu xam nga ñun mooy loolu Karim Wade defaluñu dara amul benn njariñ mais bu fi wàccoon démb wala barki démb peut-être que li fi xew ci diggante bi tax na ñu jéppi ko mais di nga gis mbooloo mu ko dara mais ñàkk bokk Karim Wade dafa leeraloon yoonu. Pastef yéeral yeeru opposition bi même budul dul Pastef opposition bi ñooy gagné élection bi loolu leeroon na ñëpp te buñ deful nànk Amadou Ba bu Karim ñëwoon ci jamono wala mu bokk ci élection yi Amadou Ba mun na bañ a jël sax deuxième même deuxième tour bi am sax mais opposition bi ay candidat wu opposition bi yi ci mel ne coalition Diomaye wala yeneen coalition yi mais ay opposant ñooy dem deuxième tour calcul yooyu def nañ ko calcul yooyu def nañ ko moo tax ñoom bi mbir mi amee ñu def seen i calcul jàpp ni kenn rek moo am intérêt pour Jomaay Karim bañ a bokk mooy Amadou Ba ñoom xalaatoon na lool parce que Jomaay mënul nekk ci kaso bi di seq dara conseil constitutionnel Sonko mënu xam nga ni ñooñu jubawul ak su réew mi gars yi Sonko yi ñoo xam ne foofu ay ger ak yooyu mënu fa am ñu xool nu mu gën a jekkee ak li leen seen xel may la def ko. jiñ ko Amadou Ba ba tey ji amuñu ci preuve amuñu ci tus te boo déggee ni Lamine Thiam waxee mooy wane ni gars yi dañ doon fooy réew mi corruption gi ñuy wax waxuma amul de waaye balaa ñu koy prouver ci réew mi fii dinañ wax sénégalais lu leer léegi nag diggante fii ak 2 juin occasion la pour ñu may la président de la république Macky Sall pour mu defaru defaru xam defaru mooy lan mooy. ay millier de jeunes ñi ngi ci kaso bi ñu xool nan la leen di bàyyee léegi nan la leen di bàyyee mooy dangay xëy bàyyi leen comme ni doon def mais loolu day yomb politiquement baaxul ci nguur gi ñu ne nan créé loi d'amnistie bu ñu créé loi d'amnistie woo ay kàccikat ñu ñu ne amnistie bi Sonko moo ko sàkku alors que amnistie du nit lañ koy defal mais ay fee lañ koy defal. mais tamit dina ko permettre mu yor ngànnaay loo xam ne dina ci mën a rey ñaari yoon maanaam benn sànni bu mën a rey ñaari picc mooy seetal ay nitam setal Sonko léegi jaxase ak Sonko ak sénégalais yi mooy bu ñu ko yóbbee assemblée nationale les députés de Yewwi wala de Pastef bu nu wotee luwaa bi xam ne loi bi bu duggee bu ko majorité bi voté parce que certainement. ñi bokk ci waa PDS du ñàkk am ñu bañ waa APR yi dinañ ko wote mais enjeu bi du ñooñu enjeu bi mooy gars yi Sonko yi c'est ça parce que même les députés de Pastef bis bu ñu voté loi bi dinañ ne Sonko moo leen jox ordre pour ñu wote ko Macky daa am lu muy ut maanaam daa am lu mu bëgg mais bu ko utee moom dong du ci am ndam. mais dafa bëgg ëllëg lépp lu ñuy décider ci réew mi ñu ne Macky ak Sonko ñoo ci àndoon loolu tax dialogue bii mu doon woote kenn taxul woon mu jug ku dul Sonko lool tax benn piège la bu ñu tànd gaayu Sonko yi heureusement demuñu ci dialogue bi beneen bu ci topp mooy laa dem loi d'amnistie bi loi d'amnistie bi nag lu jafe lay doon ci waa Pastef yi mooy teg nañ ko Macky ni mu ciy gaawantoo uti ci yërmande wala bëgg dimbali ay nit rek kooku du yi parce que mag yi fi la daan toog naan force reste à la fii ku fi yëngatu lii ku fi def lii ñu lii ah tey jii commission 2021 ak tey jii commission yi ñu fi teg yépp amul bu ci def liggéeyam tey jii amul moom mi toogul sax ba jaale xale yi dee ci réew mi fii jaalewu leen kon dara ñorul ko ci woon gisuñu benn nitam boo xam ne jàpp nañ ko gis nañ fi Macky Sall toog Sénégalais yëpp di ko dégg mu ne yéen ñu yor ay maire nekk ci seen i commune yu jël xola assurer leen seen sécurité bopp nit day am fulla ku leen ko def ngeen def ko dem na bay woo ay nitam ci xare kooku jàmm la bëgg kooku tey bu demee tey bay wax ay loi d'amnistie defalu ko Sonko boppam la koy defal mais dafa bëgg loxo Sonko taq ci parce que Sonko dafa am ñett yoo xam ne mun nga ko ci génne mars 2021 mi ngi woon ci loxo takk der yi juin mi ngi woon nu tëj biir këram yi mujj nii ci élection yi ma nga ca kaso ba kon tey jii buñ ko doon atte ci wàllu yii ñu koy jiiñ foo koy teg parce que bu ko neex mu ne yëguma woon tiiñu ma ndax fekkewu ma lu tax ñu ma ciy boole te mosuñu gis ab militant Pastef buñ jàpp gis mu yor fetal te ñi faatu bari na ci autopsie yi génn ak li gëm mooy ay fetal la leen dóor am na ñu wax lool fetal yoon ñan ñoo ko dóor ak fa lañ jógee ay nervi leen wala ay takk der mais loolu bu leeree parce que foo gis crime am am na commanditaire nervi yi xëyuñu rek ñëw di lii du ñàkk ni ay nit doonoo nekkoon ci seen ginnaaw kon tey lu loi d'amnistie bi bëggu ci lu dul regle problème am mais taxal ci Sonko man loolu laa gëm te bu demee assemblée day nekk benn enjeu parce que amul benn majorité mécanique wala électronique boo xam ne tey jii waa Benno yi mën nañ ko utiliser il faut que ñenn ci opposition bi jàpp ci si la loi passe que ce qu'on va dire bu loi bi jàll la lañuy wax moo tax benn piège la bu ñu tendre te nag mu compliqué Macky day politique Macky xam na fi muy dóor de am na fi muy dóor tey jii. conseil constitutionnel am na lu mu teg maanaam Macky da lay tegal loo xam doo ci mën dara tey ñi ngi naan conseil constitutionnel léegi conseil constitutionnel bu defee lu gën a lu Macky Macky mënul utiliser article cinquante deux tas ko créer léegi ñu jëm foo xam ne kenn xamu ko maanaam Macky li ñëpp xam li ñëpp xam Macky mi ngi ñu koy wax mais liñ bëgg xam lañu ñu waxul fël la jëm ko li ñu bëgg xam kañ la élection yi. dañuy reprendre le processus wala ceci ou cela le 2 avril bi muy wax naan foofu la sama mandat di yem mais wax na dëgg loolu loolu xam la loolu depuis 68 lañ ko xam kon mi ngi noonu euh, di gërëm ñëpp di leen sant di gërëm euh, El Hadji Modou Diouf Abdou Top ak Abdoulaye Diallo ci 30 minutes crono Omar Bun Khattab Gueye moo leen ko doon présenté kon beneen alxamis incha allah ñu dellu siwaat